ok gars yi ah, comme ni leen ko faral di defaree ñu wax leen GMTV ba mu sës duñ best of the best ah Batman du leetu mees Batman du xeesal ah. ku borom kànjaa mun a supa dañ koo bàyyi mu nuyu ba pare nag ah, mu leen amal benn surprise boo xamante ne artiste dama ko admire artiste boo xamante dama ko like koo xamante nu yaayam munti mel daf ko den ndamboo si media bi duma lay leen bi nak giril moy nuyo ba pare mu wax len koku moy kan ñu ngi la nuyu wa Gambia yéen ngi ba comme ne defa guma dara cholli gandi bari ci si autoroute bi len jar foog ñu dugg jobi kola bi ñëw na fay na bog ci moni mayangal yëngal ndey bi ni ga fay ma joni joni yow lu ñu namu yaay fay ma joni yow woo ma lu ñu namu yaay yow yow Gambia check it ma ne maa ngi waajal EP suma mixtape loolu yëpp si la bokka moo ma indi leen jàlla si autoroute bi collabo ak jëkkëri band yi dof nday tey mu ci building bi best of the best bi dañ koy xooti lii dootu fi amati giril kese si kaw seen bi bilay dara du doyati man may chef de quartier man la neex ma jaay sa gaal suma business bi dina jaar kon xam nga duma fi lambal bro dama aksi fi fii tàng raba yeb ma jaase tous tas dara di xew Macky sala wata duma dem sa dara di xew mono ko full pick up taxaw duñu taw sax mané dara di xew dara squad na ñëw duñu taw sax mané dara di xew même antecran na ñëw duñu taw sax dara di xew tous tas li fi xew. mu ne dara du xew. dara du xappun ci kanam mu leer. Ah, allah gars dama content ki daf ma jégué ci ni giril ndax ñun gambie dëkki teranga la suñ amé gan dañ ko téral ah dañoo waxtaan ak mom mu wàccee masque bi ndax mom macha allah man Sénégambien la way ki dama ko like ndax am ak yaay nu ci mel dang ko war di ko nawloo dama kontaan ci yow lolu di la ñaanal yenn la yalla guddal sa fan may la katan bi ba nga gën di mun a teral yaay kontaan naa si yow du ne da nga taxaw moo tax ma ko wax waaye barki Baye Niass maa ngi koy jiiñ si yàlla ne man dama la bugga dama la bugga de wallahi azim fu ma gis sa programme boo mun ci dugal YouTube dama koy seetaan waaye loolu lépp lu ko waral li nga buggee sa yaay ndax am na ñu bari ñoo xamante ne seen yaay ñu nga mel noonu waaye dañ ko dee nuba te yow macha allahu rabbi yaa ngi ko wane won ko àdduna ne won ne moo la jur di la ñaanal nga gudde fan gën a am courage pour gën a taxawul sa yaay fu nekk dañoo bàyyi nga nuyoo ak Gambia ñun Gambia dëkki teranga la suñu amee gan dañ koo teral te yaay suñ gan jël naa teral bàyyi la maag bi nga nuyoo ak gaay salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum aduna Dof Ndeye la Crazy Mama ñu gën ko xamee ci Dof Ndeye maanaam lu tax mu demee nii demee nii yàlla dof loo yaay di jooy mu teg ci taawam nga lu tax mu teg ma lii moom yàlla ba mu demee nii yalla dof yaay papa di joy mu tecc tambe mani pitax bu naree rëcce da ngay deg patax so dof nday la nak ma ngi juddo ci yah bu reey yalla mo suma yaay dof suma mag bu jigen makoy nangu foog man il fallait mané wax né may dof nday ñi parce que ñi yoron sen yaay yu dof diko daw dafa bari so suñu déggee dof nday di way yaayam ju dof ji dof nday di tok ak Macky Sall Dof Ndeye di woo Wally Seck mu koy wuyu si Dof Ndeye bu bippee Pape so of the business. bi sax mu wuyu du suma doole ay rap mooy ambien bi bari na rappeur suma limee juum kon lu suma tour bi yegg fo fep fo musuma fa dem comme yow musuma la gis nga bëgg sa yaay yaakaar naa kon bu lo defal sa yaay rek doo ko denc man suma yaay dafa dof damay jël sër bi teg ko ba fii sangu ko aduna laayeg ma ci loolu parce que ku si ne war a laayeg sa yaay moo ñi ma àndal ëpp ma si kenn doole mais ñoom ñëpp dañ may bëggee nax la nax yaay nax yaay nax yaay te ñoom tam bëgg nañ seen yaay am na sax ñoo xam ne jëndal nañ seen yaay kër jox ko biyee màkka mais li ma may naan daf nday yow da nga bëgg sa yaay damay jommi soo may wax li ma doon yaay moo ma ko def ak sa saar bi di ma conseillé day tax ma gën a respecté suma yaay su ma demee ba doon artiste am ak suma yaay la ñaanu yaay la na xale yëpp sukk jéggalu seen yaay di teral seen yaay seen yaay bu kontaanee si ñoom rek dañoo am ndam di leen wax e jeeg bu Ris Gambia bàyyi nii jeeg bu Faris bàyyi ah. moom ku mu introsé du baax ah. Eh, nice guy ah thank you very much Mashallah, allah kontaan nañ comme nu ma rek ah fi Gambia la dëkki teral la su amee gan dañ koo teral ah la ah. giril ñëwal nga tàggatoo agai, gars yi yaa ñu ko taamal kaay nga jox ñu dara fii ko foofu ya, ñu ko taamal. Wow, wow, wow. Degu la supase suma ya yaayu dof fi gën check it man suma bro mo ñëw check si Gambia naa wane adbi, Anikan Entertainment ñu suma ganau. grill boy take it over everything. Deger Boba season with Nefadu Suma sister. MashaAllah, guy. Huh? Ah, thank you very much.